أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci saaru ala imran ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala tey ñuy jël ñetti aaya 93 94 95 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy subuutu nas fi sharia al ilahiya sharia bii di sharia yàlla subhanahu wa taala diine jii di diine yàlla moom sunu boroom lu ko ci neex mu saxal lu ko ci neex mu dindi ko ndax mbir mi mbiram la moo ko moom jaam ñi ay jaamam lañ yonent yi ay yonentam lañ malaaka yi moo leen sàkk luwaay moom yàlla subhaanahu wa taala moo xam ni mu baaxee ci jaam ñi mu sant leen nañ dunde noonu moom moo xam li nga xam ne baaxul ci jaam yi mu tere leen ñu war a sori loolu ndax xam ngeen ne xarama allahu taala ala alyahud baad ma kaana xillan lahum xeet wi di yahud dund nañ ba ci yàgg rek yàlla subhanahu wa taala am lu mu araamal ci ñoom ndax yar leen loo xamante ne daganoon na yàlla jékki-jékki rek tere leen ko loolu moo lay won ne moom yàlla mooy yàlla lu ko neex mu def faalun lima yurid laa yus'al amma yaf'al wa hum yus'aluun yàlla moom lu ko neex mu def mais keneen ku dul yàlla loo def danañ la poñe ne la lu tax nga def ko ñaareel mooy ibtaalu daawa al yahud anna ibrahima kaana muharraman alayhi luxumu l ibil wa albaaniha ñaareel bi ñuy jëlee ci aaya yi ñu war a jël tey mooy aaya yi dañoo ñëw di dàq lenn loo xamante ne ay wax la yu jot a rot wala ay wootewu yu ay nit di wootewu ci famille bi tudd yahud ne yonent yàlla ibrahim dafa am lu yàlla araamaloon ci moom ci yàpp gëléem ak soowam loolu moom aaya yi dañoo ñëw di ko dajji di wax ne amul ne Ibrahima moom ab yonent la woon bu yàlla tànnal boppam yónni ko wàcce ci moom ay shari'am waaye wérul comme ñoom niñ koy waxee ne yàlla dafa am lu mu araamaloon ci Ibrahim ci yàpp gëléem wala ak soowam loolu wérul mbokk yi ñetti aaya yi nekk sunu kanam bokk na luñ ciy jëlee mooy taqrir aaya yi dañuy saxal an nubuwa al muhammadiya aaya yi dañoo ñëw di wéral di saxal yonent yàlla muhammad nekk gi mu nekk yonent sallallahu alayhi wa sallam aaya yi dañoo ñëw bi taxaddi di lancer défi alal yahud ci yahud yi wa ajzim ani daf il xaq allazi jaa bihi muhammad ay dañoo ñëw di wane di lancer défi yahud yi naan leen su fekkee muhammad alayhi salatu salaam la mu indi ak nekk gi mu nekk yonent mën ngeen a indi ay mbir yu ko contrecarrer wala ay dalil yu ko weddi bismillah ñëw leen waaye day loolu amul loolu kon lu muy wane mooy kon yonent bi li mu nekk dëgg la li mu indi sallallahu alayhi wa sallam loolu dëgg la ñetti tomb yooyu moom moo nekk sunu kanam ci ay aaya yoo xamante ne fas yéene nañ koo jël sunu borom subhanahu wa taala diñu ko jàngal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين سنبرم نينا سبحانه وتعالى kullu taami bépp ñam ab taam ismun li kulli ma yutam nee na tur la woo xam ne dañ koy tuddee lépp lu ñuy ñam di ko lekk min anwail maakulaat ci mboolem lu ñuy lekk rek dugg nga fii mooy kullu taami bépp ñam ñu ne ha mu ne kaana nekkoon na xillan lu dagan li bani israila ci waa israil lépp la leen yàlla daganaloon ndeysaan xoolal ñi rek leen yàlla may kullu taam bàyyiwul benn ñun tey am na luñ ñemee lekk am na luñ ñemewuta lekk dagan na ci ñun yàpp nag waaye araam na ci ñun yàpp mbaam xuux dagan na ci ñun yàpp xar waaye dagan na ci ñun yàpp mbaam sëf gis ngeen ñee nag kullu taam n'importe ki lekk kaana nekkoon na ca jamono yooyu xillan di dagan ñeel ñan mu ne li bani israil allahu akbar yàlla mu ne alxillu dagan mooy alxalaal ndeysaan tey boo demee Europe di nga fa fekk ay jullit yi ci coono gu ñu sonn ba bëgg a lekk lu dagan ndeysaan bëgg a sori lu xaraam ñu jël ay lekk bind ci alxalaal mooy niñ ko rendee baax na niñ ko feesee baax na niñ ko toggee baax na yow jullit bi mun nga kaa lekk ñu bind ci alxalaal maanaam lépp loo gis ñu bind ci xalaal lekkal mën nga cee lekk dagan na ay jullit a ko rey niñ ko reyee baax na ah loolu niñ ko defaree baax na loolu effort la boo xam ne jullit yaa ngi koy def tey ci àddina bi ngir moytandiku lekk lu bon ngir moytandiku loo xam ne yahud yi ñoo ko rey wala nasaraan yi ñoo ko rey waaw loolu mu ngi am tey ndeysaan ci jullit yi muy alxalaal wa sumiya xalaalan lu tax juddule ko dagan mooy li inxilaali iqdatul xatari anhu ndax lépp luy danger nekkatu ci moo tax ñu ne yi dagan na lépp lu la yàlla daganal rek amatul danger gis nga waaye soo déggee wax jooju kon lépp lu la yàlla tere danger ci xar moo xëy rek fekk mu dee lan la ci lislaam wax kado yaa ngi ñëw ndaw si yónnee na ma ay kado incha allah mardi dinaa indi kado yi te montre yi rafet la nag waaw yow ngeen jege te comprendre daklaas yi waaw incha allah am amul amoon naa dootuma amaan mun nga amaan ñaari montre de ah xar moo xam ne dafa dee rek direct lan la la ci lislaam wax dafa haram médd na lu tax parce que danger moo ci nekk mu ne ñu ne la bul ko lekk ah yàpp mbaam xuux ñu ne la bul lekk lépp lu lis sàngara bul naan parce que yëpp danger moo ci nekk xoolal loo xam ne boo ko naanee da lay tàqaleeg sa xel mën ngaa nekk kilifa nga dem àll ba sa tubéy mën ngaa ñëw ci kër gi mel ne xale bu ndaw fekk sa yaay toog ngay wax ci moom loo xam ne mën ngaa fekk sa papa toog ngay xëcc sikkim bi mën ngaa ñëw ba fu ilimaan ci biir jàkka ji nga saw fi ok lislaam bu nee nit bu mu ko jege ah lépp lu lislaam tere rek doomu aadama bu ci bàyyee xel xool ko dëgg day xam ne lii dagan nañu tere ko moo tax lislaam même bu duloon sax du diine bu bàyyi ko ci yàlla dagan na nit ñi def ko idéologie pour xeex pour mu samp parce que daf lay aar xoole lislaam mu ne bu kenn fen bu kenn jëw bu la nee bul jëw dafa tere ñu jëw la xoola fi degere bi islaam jox jëw al xiibatu asaddu min azina jëw moo gën a bon njaaloo ngir rek bëgg ñu bañ a yàq deru nit ñu bañ a gàkkal nit yonent bi ne la njaaloo gis ngeen nu mu bonee jëw moo ko gën a bon yooyu yëpp lislaam tere ko kon lu dagan mooy loo xam ne danger nekkatu ci moo xam dañ koy lekk moo xam dañ koy naan moo xam dañ koy sol moo xam barab la moo xam dañ koy war maadaama danger nekkatu ci yàlla daganal na ko loolu mooy alxalaal bani israil mooy awlaadu yaqub mooy doomi yaqub yi almulaqab bi israil moom la ñuy tuddee israil almunhadiruna min abnaihi al isna asara ila yawmina haza ñooñu nga xam ne ñoo jóge woon Palestine ñëw Égypte doom yooyu mu àndaloon doom yooyu yàlla di wax ci alquran ne ñoom la Yusuf géntoon muy fukki doom ak ñaar ñooy ñooy banu Israël ba fii nu toog tey ñooy ñooy doomu Yaqub yi ñoom ñooy israéliens yi loolu mooy yàlla li mu wax ne kullu taami bépp ñam kaana hillan nekkoon na lu dagan li bani israil ñeel doomu yaqub yi mu ne illaa lu dul maa xarama la nga xam ne araamaloon na ko israilu yaqub ala nafsihi ci boppam lu waral loolu lu tax yaqub jékki-jékki rek araamal ay mbir ci boppam daan ne lii dootuma ko lekk wana aaye yi nekk sunu kanam muy aaye bii dafa ñëw di leeral ci ñi nga xam ne dañ doon woote ne ibrahim alayhi salaam yow yonent bi da nga naan yaa ngi ci diine ibrahim bi nga nekkee ci diine ibrahim ba pare nga nekk fii di lekk yenn yàpp yoo xam ne yenn lekk yoo xam ne ibrahima daawu ko woon lekk loolu nu mu nekkee wa taakulu ma huwa muharram fi diinihi min alluhumul ibili wa albaaniha yow yonent yàlla muhammad nee nga ci diine ibrahima nga nekk nee na ibrahima gëm nga ko royukaay la ci yow ba pare ibrahima daawul lekk yàpp gëléem daawul naan soowu gëléem yow nga toog fii tey di ko def loolu nu mun nekkee farad allahu taala ala haza yàlla daal leen di tontu delloo loolu ñuy wax ndax ne ay sos la dara wéru ci loolu moo tax suñu borom ne bépp ñam bépp lekk dafa daganoon ci waa banu israil mooy njabootu yaqub amul lenn lu leen yàlla araamaloon ci ñoom amul ci diine yonent yàlla ibrahim lu dul illa ma harrama israil mooy lu dul la yaqub araamaloon boppam ci lekk yàpp gëléem ak naan ay soowam lu tax dafa nësaroon moom yaqub wa annahu marida benn bis dafa xëy feebar maradan feebar boo xam ne dafa metti trop bi loolu amee moom yaqub mu daal di nësër mu ne bu ma wéree yàpp gëléem soowu gëléem dootuma ko naanati fa nazara al atima wal ashraba mu nëzër ne inshafaahu bu ko yàlla saafaree wéralee taraka dina bàyyi ahabu taami man dal su ma wéree li ma gën a bëgg ci lekk loolu laay bàyyi li ma gën a bëgg ci ñam loolu laay bàyyi li ma gën a bëgg ci naan loolu laay bàyyi loolu lan la fekk jamono yooyu moom lu mu gënoon bëgg lan la yàpp gëléem ak soow min ahabil at'ima wal ashraba fa tarakaha allahu taala hada al maana yàlla daal koy bàyyi loolu loolu moom moo ko nësër moom moo ne dootu ko defati est ce que léegi kon bu fekkee ne lii yàlla wax nu yàlla moo ko araamal wala moom moo ko araamal ba ah léeg-léeg nit daf koy def man de wallahi bu ma wéree wala bu ma amee nangam misaal kenn ne man su ma amee liggéey sama premier salaire dama koy saraxee est ce que bu saraxee premier salaire am boobu yàlla da ko ko exiger waaye saa yoo nësëree nag nësër farata la léegi ci yow su ma amee nangam dinaa woor ñetti fan boo woorul am nga bakkaar su ma amee liggéey dinaa saraxe sama premier salaire boo ko saraxul am nga bakkaar dama wér bu ma foobaree dinaa def nangam bis boo wéree defoo loolu am nga bakkaar parce que yow yaa ko signé ak yàlla léegi nag comme moom dafa feebaroon nee na sunu borom bis boo ma saafaraa nga wéral ma dinaa bàyyi li ma gën a bëgg ci lekk bàyyi li ma gën a bëgg ci naan yàlla daal di koy saafara léegi lu war ci moom mu daal di bàyyi jeex na parce que daf ko nësër moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ku nësër pour topp yàlla na mottali nësër bi waaye boo mësëree da ngay mooy yàlla ah man de nësër naa quoi 31 décembre bi daal damay fecc hay wala nësër naa comme booy yi def examen bu ma amee bac damay def arrosage est ce que loolu nësër bu baax la déedéet loolu kenn du ko def parce que loolu baaxul def xaraam saa yoo déggee ñu ne nësër war nga koo def ci lan lay ju jubu mooy lu baax jaamu yàlla topp yàlla subhanahu wa taala loolu moom mooy nësër bu baax waaye bu fekkee dafa jëm ci lu bon jëm ci lu ñu sib jëm ci lu xaraam amoo droit def nësër boobu sunu borom subhanahu wa taala mu ne bépp ñam kullu taam soo déggee kullu bi rek lan la la bàyyil dara lépp ñoom neexoon nañ de seen dund waa banu israil waxuma yàlla daganal leen bépp lekk waaye demoon nañ ba yàlla moo leen di indi lu nuy lekk yàlla moo leen di indi lu nuy naan daawuñu def dara dañuy toog heure lekk bi jot asamaan ubbeeku malaaka yi indi leen luñ lekk wala lekk gi wàccal boppam ñu lekk ba suur mu yéegaat dem kaw asamaan waaye xam nga nit surtout ku gëmul yàlla surtout ku amul yaqiin surtout ku bew surtout ku reew surtout ku dof ah léeg-léeg nga gis xale xale bu ñu yarul papaam am xaalis day fil rek boo ko joxee kaasu ataaya sax bu naanee pare da koy sànni da koy tëmbal mu rajaxoo lu tax parce que yaruñu ko banu Israël noonu lañ defoon bew reew fuuy yàlla di leen indil man naak salwaa ñuy lekk ñu jekk daan ne yàlla benn plat dafa soof bis bu nekk rek sombi ñoo ñun sonn nañu lan nasbir ala taamin wahid ba pare terme sax yu garaaw la ñu utiliser lan nasbir ala taam ñun mënatuñoo muñ benn plat benn ñam taam baa ngi noonu benn plat mënatuñ ko léegi luy xew lan la leen yàlla wax comme mënatu leen muñ benn plat benn plat mënatu leen aca luy mbir mi ah lan leen yàlla wax yàlla ne leen dem leen Égypte dem leen ngeen bay ndeysaan koo xam ne da nga daan toog mu ñor nga lekk tey yow yaa nar a liggéeyal sa bopp imagineel boo ñëwee di bay balaa ngay bay balaa muy ñor balaa ngay yóbbu sa kër balaa ngay togg balaa ngay yekk ñaata coono la moo nekk foofu ci koo xam ne yow xamoo woon nu da ngay ñëw rek lekk dem sa yoon wala yàlla mu ne lan fa duribat alayhimul maskana azillatu wal maskana wa baau bi ghadabin yàlla mu ne ma teg seen kaw toroxtaange pauvreté ak alkande yàlla mere leen sànj yàlla sànj leen loolu paa yi di wax sànjum yàlla tegu seen kaw sunu borom loolu lay nettali ci aaya boobu mu wax ne kullu taam kaana hillan li bani israil illa ma harrama israilu ala nafsi lii nag min qabli njëkk la an tunazzala tawraat yàlla di wàcce téere boobu tudd tawraat lu tax lii dafa leer su yàlla ne lii avant tawraat di wàcc la ah, loolu kay histoire sax dëggal na ko lu tax histoire dëggal na ko tawraat ci kan la wàcc Moussa lii ci jamono kan la woon Yaqub Yaqub moo jiitu Moussa mu ne kitaabu anza kitaabun anzala unzila ala Moussa alayhi salaam wa huwa min zuriyati Israil moom Moussa moomu dafa bokk ci njabootu Israil njabootu Yaqub looloo tax góor ñi bu ñu mënee ñëw ci kanam ndax jigéen ñi toog foofu. góor ñi waaw ñëw nii ci kanam waaw yal na yàlla fay leen min qablu an tunazzala tawraat lii avant la tawraat di wàcc ndax xam ngeen ne tawraat téere la boo xam ne yàlla nga ko wàcce ci kan yonent yàlla Muusa alayhi alayhi salaam léegi nag comme Muusa ñëw na yàlla jox ko tawraat Muusa di leen waar ba faatu génn àdduna yonent yàlla Muhammad ñëw di leen waar di leen jàngal diine ñoom ñu bëgg a indi ay diingat bëgg a yàq li Muhammad indi ñu commencé naan ko yow da nga naan ci diine Ibrahima nga nekk Ibrahima sa maam la nangam ak nangam ak nangam comme niñ ko waxee woon noo waxee ne yow jullit nga nga bàyyi masjidul haram ngay jublu masjidul aqsa di jublu ñun fu nuy jublu loolu nu mu nekkee gisee keroog boo ko yéen bi déggee nga tourné jublu masjidul haram lii tamit ba ñu commencé di indi seeni lay ak yonent bi yàlla wàcce leen alxuraan ne leen qul yow muhammad na nga leen laaj na nga leen wax lan nga ni leen fa'tu bi tawraat indi leen léegi tawraat fa atluha ma jàngu ko in kuntum sadiqin bu fekkee yàlla dafa tere woon ibrahima lekk yàpp gëléem yàlla dafa tere woon ibrahima lekk naan soowu gëléem te yéen tawraat mooy seen téere dem leen ngeen indi ko allahu akbar xoolal lislaam mu lay muy muy weranteeg yow ba pare di la seedeloo sa bopp waxul man ma indi li ma yor de ma seede sama bopp déedéet yow mii weddi yow yaay seede dama nga indi tawraat sa téere ñu jàng ko fekkee wax nga dëgg fekkee wax ngeen dëgg bu leen fi nekk rek di discuter téere tawraat la leen yàlla joxoon tawraat mooy seen téere Israël mooy seen maam Moussa mooy seen yonent dem leen ngeen indi tawraat bu doon dëgg la duñ ko indi waaye du dëgg xam na ne dañuy fen ñun li ñu miin ci aada mooy ku la bëgg seede looy wax maay seede sama bopp wala ah wala nga uti ku la seede du dëgg nañ dem booy nga seede ma yenn saa yi nga bëgg nga topp bëgg a toppatoo këyit nga dem tribunal fekk fa ay paa yoo xam ne loolu rek la ñuy def nga ñëw ne man dama bëggoon këyit ñu ne waaw nga ne dama bëgg yéen ñaar ngeen nekk sama seede ñu ne waaw ñaata laa leen di jox ñu ne 2000 wala 2000 ñu ñëw ci kanamu juge bi waaw kii 1900 sàngaluñu ñu ne waaw kuy papaam ñu ne diw ku yaayam diw fan la juddoo nga ni place sàngam est-ce que fekkee woon nga ko 2000 tax ngay fen fekke woo ko ngay seede loo xam ni xamoo benn waaye dafa rey nit mu daw waa dëkk bi topp ko mu raw leen lu bari mu jubal benn dëkk bi mu duggee dëkk bi rek mu ñëw fekk benn mag taxaw ci buntu kër gi mu ne ko damaa rey nit de mu ne ko léegi nag mu ne ko waa dëkk baa ngi ma topp bu ñu ma fekkee dañ may rey mu ne ko duggal ci ñax mi waa ji dugg ci ñax mi rek ñu teg ñax mi ci kawam gaa yi yegg seeg seeni yat dafa am benn waaye bu rey nit bu ñuy seet góor gi ne ko góor gi ne leen mu ngi ci ñax mi gaa yi ne ko moom daal daw continuer waa ji ci biir ñax mi mu ngi lox ndax dégg na li góor gi wax ba affaire bi gaa yi dem ba sori mu ne ko génnal dem nañ waa ji génn naan ko yow lu tax nga ne leen maa ngi ci ñax mi mu ne ko da ngaa bëgg ma fen nga rey nit ba pare may fen man du ma ko def su ma leen woon ne gisuma loolu mooy la gis ngeen kon fen nu mu grave bu doon kenn ci ñun fii may def gisuma ko fen nga te yonent bi ne jullit du fen moo tax góor gi ne leen mu ngi ci ñax mi waa ji bu muy wax mu ne ko noppil sama dëgg gee la sauvé noppil amoo dara la wax sama dëgg gee la sauvé bu ma wax loon dëgg gaa yi jàpp la maanaam loolu mu leen wax ne mi ngi ci ñax mi moo tax gaa yi daal di koy soofal ne moo kii dañuy nax ki dem seen yoon dem wëri ko ndeke waa jaa ngi ci ñax mi dëdd léegi ñaar am na ci góor gi dëggu na waaja sauvé na waaye bu doon fii ñun kenn nooy def allahu akbar gis ngeen fenn mu sewee benn waaye ñëw na di jàngi mu fekk ka koy jàngal yor leket gu amul dara naan xar yi bar bar waa ji daal di jël ay téereem jubal mu ne ko "Eh, kaay kaay du da ngay jàng si mu ne ko waaw mu ne ko bu léegi nag foo jëm mu ne ko doyoo ma lu tax mu ne ko da ngay fen ay xar kuy fen ay xar dina feni nit Hmm? xoolal kooku ñun bu doon yow la yaa jàng si nooy def da ngay toog ah cam sax nga ñëw di ko fenle kor kor kor kor di fenle kooku waaw yàlla na yàlla jubal moo tax xeeb xeeb xeeb mbir yi baaxul xeeb mooy indi musiba xeeb gis nga yu ndaw ndawaan yooyu ngay xeeb moom mooy taal daay borom xam-xam yi dañ naan safara daay ci lan la tàmbalee ci benn étincelle bu ndaw la safara tàmbalee waaye gis nga biñ ko seetaanee wala nit ñi yéex koo yëg lan la def dafa lakk dëkk bi ëpp la taal moo tax lu ndaw kenn du ko xeeb ay fen ak ay nangam ak dugg fi yooyu jullit naka mooy tandiku ñii ba leen yàlla bëggee tiiñal yàlla dane leen fatu bi tawraat ngalawaay bu leen fi nekk di wax dem leen rek ngeen indi ci tawraat seen téere la ci yéen la wàcc su fekkee ne lii yàlla da koo araamaloon wala nanga ibrahima da koo araam dem leen rek dem leen loolu yomb na ndax dana ca nekk mu ne fa atluha ay aqra'uha ma jàng ko ala ru'usil mala ci seen kanam yéen mbooloo mi li tubayina sihata da'waakum ndax seen wax ji ngeen wax wér na wala wérul min butlaaniha ci yàqute gi la jëm ndax bu ñu indi woon tawraat yonent yàlla muhammad jàng ko kon seen fen ya ca nekkoon rek muy génnaat mooy lan yàlla musta araamal ci banu israil mbir moo xam ne ñoom araamaluñ ko seen bopp waaw ñoom ñoo indi seen reewande wala ñu njëkk ne nangam ak nangam yàlla fekk subhanahu wa taala fekk si leen gis nga même christianisme bi gaa yi ne duñ takk jabar dañuy labbewu ndax jaamu yàlla suñ borom ba mu leen di tontu lu mu wax ibtadauha ma katabnaha alayhim ñoo ko sos de waaye man yàlla santuma leen ko woon farataaluma ko te sax fama ra'awha haqqa riayatiha sonkuñu ko ñaata labbe ñoo biiral ñaata labbe la ñu jàpp ñu nekk ay pédophile yi Europe looloo ko yàq moo tas église bi ah waaw ndeysaan wala loolu ñaata ñaata ñaata ay pape ay kat ay ay ay ay ñaata ah ay waaw ay labbi góor jigéen xoolal loolu ñaata na noonu yàlla jubal léegi nag xam nga lan mooy wax ji gis nga noonu ñu yàqe Europe nga xam ne valeur amatu fa noonu lañ bëgg a yàqe Afrique mboolem loi gis ngeen assemblée ñu ngi jëm di wote ji loi lan yàq biir xam nga lu ñu koy layee ñu ne noo xale bu jigéen bi bu ko papaam ëmbalee doom jooju warul juddu gis nga xale bu jigéen buñ ko violé xamul ko ko violé doom jooju warul juddu biir boobu dañ ko war a yàq gis nga fu ñuy jaari waaw waaw léegi ndeysaan te xoolal ci jamono yooyu ñu naan dañuy aar kii ak bañ mu am gàcce ci jamono boobu koo xam ne moom doom ji mu nekk ci biiram doom ji dafa lew dafa dagan mu ngi bëgg a am doom amul hôpital bu mu amee doom ci sareet lañ koy teg pour yóbbu ko ci maternité bu mu am doom balaa ñuy egg yenn saa yi mu dee xool ni ñuy sauvé kii bandi bi ñu koy sauvé kële moom nga xam ne ci lu dagan la nekk moom mu ngi dee ñaata ci àll bi ay jigéen yoo xam ne bu ñuy accouché ci sareet lañ leen di teg ñuy daw ay kilomètres ñenn ñi ci biir kër yi la ñuy amee doom waxuñu loolu waxuñu ci dara ci ci lan la ñuy wax avortement médicalisé waaw dañu war a def loolu ndax ndax ndax ku papaam ëmbal ndax ku ku ñu violé ndax ku ñu ndax ku ñu buñ ko ubbee gis nga bu nit ñi seetaanee ba mu ubbeeku Sénégal nag moom ndeysaan lépp lu ñëw ahlan wa sahlan waaw day jàll xam nga lu tax parce que xaalis xaalis moo fi nekk ci ginnaaw nit ñi lépp lépp laa wax de fu nekk loo indi rek na jàll loo indi na dem gis ngeen mbiram góor jigéen bàyyiwuñu ko de dañuy may nit ñi batmaa rek pour société bi gën a dem ba gën a yàqu bis buñ koy daganal góor jigéen ñi ci seen bopp ñooy xëy ma ñooy xëy fees place de l'obélix nga xam ne kenn du leen mënal ra ay millions la ñuy nekk su ko defee nag ñu ne ah lii de kenn mënutu ci dara ndax ñoom ñoo ko bëgg ah Sénégal ñaata millions la 12 millions 13 millions góor jigéen ñi bu ñu fi amee 1 million daganal ko benn million bu nekk ñëpp nekkee ay góor jigéen ñu daganal ko kenn mënu ci dara te fa lañ jëm moo tax ñu ubbi bunt yi gis ngeen franc-maçonnerie dagan na Sénégal moo jël pay ci Afrique ci sondage yu mujj yi may yéeni nii Sénégal moo jël pay kon nag na ngeen bàyyi xel suñu dëkk bi fu mu jëm borom bi mu ne na ngeen dem ngeen indi tawraat fa atluha ma jàng ko in kuntum sadiqin bu fekkee wax ngeen dëgg lii kay jarul xulo su fekkee wax ngeen dëgg ne lii dafa araamoon yonent yàlla muhammad di ko lekk te ibrahima daawu ko lekk yaqub daawu ko lekk dem leen ngeen indi tawraat in kuntum sadiqin borom bi bàyyi loolu mu ne leen faman iftara képp ku sosal talaqahu wizruhu wa qaalahu képp ku fenal yàlla faman iftara képp ku fen alallahi ci yàlla mu duural ko alkaziba ay fen min baadi ginnaaw zalika loolu fa ulaayka ñooñu humu zalimuna ñooy tooñkati képp ku fenal yàlla ndeysaan yonent bi dane man kadaba alayya falyatabawa maqaduhu min annar képp ku ma fenal booy dem safara bu yóbboo nga yóbbaale ban ban xam ngeen ban mooy lan ndeysaan ki ñu doon jàngal hadis bi yàlla na ko yàlla fay mu ne xam ngeen lu tax yonente bi ne na waa ji yóbbaale ban mu ne ndax fa mu dafa nar a yàgg sooy dem fooy yàgg dañ naan la yóbbaaleel foo toog léegi ku fenal yàlla ku fenal yonente bi da ngaa nar a yàgg safara kon ku fenal yàlla nag ah ku fenal yonent bi danga nar a sax safara kon ku fenal yàlla foo jëm fa man iftara képp koo xam ne loolu la borom xam-xam yi naan duur képp ko sos alallahi ci yàlla alkadiba ay fen mu ne yàlla nee na te yàlla waxul yàlla wéral na te yàlla wéralul yàlla saxal na te yàlla saxalul min baadi zalika ginnaaw lii dëgg yu leer na feeñ nang mu ngi nii fa ulaayika ñooñu humu zalimuna ñooy tooñkat ku fenal yàlla kay passé nga sax tooñkat borom bi subhanahu wa taala mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sadaqallah yàlla wax dëgg de wallahi ah sadaqallah yàlla moo dëgg maanaam les passé yëpp ci waa banu israël li ñuy wax ne ibrahima daawul lekk nangam ak nangam yàlla mu ne déedéet sadaqallah man yàlla maa wax dëgg li ma la informé fii mooy dëgg li ñu wax ci yaqub man yàlla li ma la nettali mooy dëgg liñ la wax ci muhammad man yàlla li ma la wax mooy dëgg li ma leen wax nañu indi tawraat sadaqallah man yàlla li ma la wax mooy dëgg ah yàlla xamal ne la fee ñoom dañuy fen ndax dañoo sosal yàlla lu mu waxul mu ne la fii qul sadaqa allah yow muhammad nanga leen wax ne yàlla moo wax dëgg lii mu wax ci téeram bi muy quraan te muy dajj ñoom la ñu wax looluy dëgg kon nag yéen jullit yi maadaama yàlla moo wax dëgg fattabi'u topp leen millata ibrahima yoonu ibrahim hanifan ibrahima dafa jéng ci lépp lu bon jub ci lislaam wa ma kaana ibrahima masta nekk minal mushrikiina ci bokkaalekat yi loolu moo tax yàlla def ñu Ibrahim muy sunu royukaay ah Ibrahima loolu moo tax yàlla tuddee ko imaamul muwahhidin mooy amiru njiitu ñi am tawxid inna ibrahima kaana umma ibrahima rek nation la ci tawxid naa boo boole woon adduna bi adduna bi tey ñaata million la wala milliard la ñuy wax 7 milliards ñoom ñëpp boo leen boole woon ibrahima moo leen ëpp iman inna ibrahima kaana umma lu tax tawxid kennal yàlla moo tax li mu def moom dong moo ko ñemee def ñëw ci njabootam ci digg fameem ci waa dëkkam ci ay ndeyam ak i baayam mu ne leen déclaré naa leen guerre wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal bagda ah abadan hatta tu'minu maa ngi leen déclaré guerre xeex naa ak yéen dootuma leen dootuma leen jege dootuma leen nuyu dootuma lekkandoog yéen duma añ ak yéen duma reer ak yéen allahu akbar ba ngeen kennal yàlla kese bu ngeen wéetalee yàlla rek ngeen nekk samay mbokk bu ngeen ko deful samay noon ngeen waaw loolu du leelu ñu bëri mënuñu ko de sa papa sax da ngay négocier ak moom waa góor gi te leer na leen ne musurik la wala sa yaay wala sa sa soxna wala sa wala sa wala sa waa xool Ibrahim dafa déclaré ñëpp guerre ne duma ko def ah Ibrahim yàlla jàngal yi ci moom naka la ñuy amee tawhid benn mbokk nee na Ibrahima mooy premier intellectuel moo war a pousse intellectuel yi ñu xalaat parce que kuñ naan intellectuel lan ngay jëfandikoo ba nekk intellectuel sa xel Ibrahima loolu la def ba mu gisee biddiw gi génn lu mu wax ah ah sama borom biddiw bi suux mu ne laa uhibbul afilin xoolal weer wi génn mu ne ah kii mooy yàlla weer wi daal di dugg mu ne déedéet jant bi na pëng mu ne hasa akbar ki mooy ngandame nag ngandamaagoog loolu gars yi doon wax ngandamaagoog di jooy benn mbokk nee na bommaar la bi mu deewee benn waay dafa jéggi rek papaam ne ko la la mu ne ngand mi moo dee ngand mi allah mu ne ngand mi loolu lañ daan wax de ngand mi ibrahima moom loolu la wax mu ne ngand maa ngi nii nag hasa akbar bi mu gistulee jant bi lan la wax la in lam yahdini rabbi ay yàlla boo ma jubalul danaa bokk ci ñu sànk deñ naa ci lii yëpp di suux di nëbbu jëm naa ci ki indi affaire yi mu nekk sama borom wala loolu mooy intellectuel mooy nga xalaat noo rëcce nga xalaat Ibrahima dafa xalaat jàngal ñu loolu pour ñu xam kan mooy sunu borom subhanahu wa taala moo la Ibrahima kenn mënu koo dab yàlla royloo ko yonent bi royloo ñu ko ndax ni mu amee woon tawxid amul kenn ku mun a dab ibrahima ci tawxid yàlla ibrahima posé na yàlla question ne ko dama bëgg nga won ma nooy dekkale ku dee yàlla ibrahima xanaa gëmu awalam tuumin qala bala walakin li yatma inna qalbi gëm naa de yàlla mu ne ko ha mu ne waaye dama bëgg sama conscience tranquille dootul déngi déngi sama ngëm gi daal di sax ne keng moo tax mbokk yi bi ko yàlla ne reyal sa doom lu mu def ah loolu moo lay wan ne dafa dafa gëm na biñ ko ne reyal sa doom nan la def dafa dengi dengi da koo laxas yu bu ci àll ba ne ko sama santaane boroom laay jëfee sama santaane boroom waaye yàlla boole kook doom joo xam ne aussi jur na ko fa mu ko war a juree yàlla boole ko aussi soxna soo xam ne takk na ko fa mu ko war a takkee loolu moo tax loolu tam dafa am importance de mën nga xoolal nuux nuux am na jabar am na doom waaye jabaram ak doomam ñoo ko njëkk a contre waaye xoolal Ibrahim jabaram ak doomam ñoo ko jàppale pour mu mun a def santaane yàlla pour moom doom ji ne yaa abati if'al ma tu'mar sa tajiduni insha allah min as-sabirin ndeysaan yàlla nee na ba mu jàppee doom ji tëral falamma aslama ñoom ñaar ba ñu jébbuloo ibrahima jébbulu ne day room day rey doom ji doom ji jébbulu ne dañ may rey ah ñooñu duñ jébbulu ci nit de falamma aslama ñoom ñaar bañ jébbuloo jox yàlla seen mbir wa tallahu lil jabini mu tëral ko ci jëba ndeysaan ah takk bët yi daal di tëral ko jël paaka bi ne da koy rendi yàlla daal di koy woo ñaata yoon ngay dégg yàlla mu ne salaamun ala ibrahim yàlla na jàmm nekk ci ibrahim yàlla koy ñaanal c'est parce que dafa am tawxid kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñu comme yàlla wax dëgg ngalawaay mbokk yi fattabi'u topp leen millata ibrahim yoonu yonent yàlla ibrahim diinuhu wahiya ibadatullahi taala mooy jaamu yàlla kese bima sharaa ca la mu yoonal wa nabzi shirki wal bida na ngeen bàyyi bokkaale ak bida tey bokk dara taxul jullit yi tardé ci àddina bi lu dul bokkaale ak bida loolu dong moo ñu tardeel billahi wallahi taala dara sonalu ñu yàqul sunu diine yàqul sunu àdduna nar a yàq sunu àllaaxira mooy bokkaale ak bida diine boo xam ne da ngay bokkaale dugg ci bida xar fa fuufa guddi xar fa fuufa bëccëg sooy ngénte bidaa la booy takk jabar bidaa la booy céetal bidaa la buy sëy si bidaa la bu ngeen di tëdd ci lal bi bidaa la ah bu ngeen yeewoo bidaa ngeen di yeewoo booy xëy ci kër gi balaa ngay génn bidaa booy dugg ci oto bi bidaa boo eggee place ba ngay liggéeyee bidaa sirk xoolal waaye day tëdd ci lan lay def bala muy tëdd day diw ba sonn lu ne mu jàmb naan diw ah wóorul wóorul bu yeewoo bala muy génn wóorul wóorul diw naan ba sonn buy génn ci kër gi foog ndeysaan xale yi may àndal dañu gis benn jigéen boo xam ne ndaw si day jaay ñoo dend suñu wetu daara la nekk benn bis dama seetlu ñetti yoon bu ñu séenee rek day taxaw ba ñu romb ko mu dem benn bis rek ma ne xale yi gis ngeen maire bi ñu ne ma waaw ma ne ko day bañ a daje góor xale yi ne ma ah mën leen waaw yàlla nattuñu benn bis ñu ne tëll rek mu taxaw rek man jiitu naa xale yi taxaw ci diggu bayal su avancé rek xale yi avancé mu taxaw mu delluwaat ci bunt kër gi xale yi taxaw billaahi wallaahi taala man dem naa ba yegg école mooy bayal bi ñuy demee conférence man dem naa ba école may nii gisuma xale yi ma ni waaw te fajar la fa teel ma ni waaw lii maa ci am la ma tourné waaxu waaxu yu tàng ma ni nii gis xale yi taxaw ci diggu bayal bi ma lee lan la ñu ree ñu ree quoi ba léegi xaw ma la ma lee lan la ñu ree après man leen jaar leen nii ñu topp ma man ñu ñëw ba ci école bi man leen lan la ñu ne maire boobu lañ doon won quoi maire boobu lañ lañ doon bañ mu xëy ay xale yu ndaw yu góor tëra laa xëy loolu ban imaan la ban diine la mooy boo dangaa gëm ne boo dajee góor doo jaral doo am dara su ma fa bàyyoon xale yi wallahi du xëy waaye bu xëyee suba dootuñu jar dara parce que dana wër dëkk bi yëpp ne maa taxawloo xale yi ci digg bayaal bi fekk man yëguma ko loolu musiba la xoolal bidaa yi réew mu ko gëm xoolal bokkaale yi réew mu ko gëm nit ñu ko gëm fuñ jëm ñun ñoo xam ne amuñu benn pas-pas lu ñëw yóbbu leen parce que démb dama 24 décembre xam nga ñun 25 dañoo jàng ak 26 bi dama jékki-jékki rek benn parent d'élève ñëw salaamaaleykum waaleykum man dama am problème mu ne ko problème lan mu ne sama doom ñun dañuy jox kado fi ñuy liggéeyee bind naa turam ba pare moom nee na du dem parce que lii du feetam waaw léegi dama bëgg nga ñaanal ma ko mu dem rek lii du dara ma ne ko hé sa doom lu mu bañ man nga bëgg ma ma may ko ko demal nga wax ak sa doom sama yoon nikku ci mu ñëw ne xale bi xale bi ne ko loolu du suñu feet xale baa ngi CP CP ne ko loolu du suñu feet papa loolu du suñu feet kado bi bugguma ko mu ne mu ne waa xaaral ma dem uti benn xale kon bu ko remplacer ma ne ko waaw noonu la langar langaree dem wala moom ci boppam mu bëgg a forcer xale bi loo xam ne baaxul ñu fuñ jëm xale bi sax bu bëggee bañ yow nga ne ko déedéet lii du dara bon lii xam nga rek kii kado ngay kado kado kado kado ñu ngi ci weeru gàmmu tey mooy ñaari rabiul awal xaw ma ñett lu tax doo jënd kado nga ne ko yonent bi weer wi la juddu lu tax duñ def loolu pour bëggloo ko yonent yàlla Muhammad waaye xoolal doo dégg fi kenn wax kenn doo dégg kenn wax ci affaire boobu loolu ay woy rek Sénégal yonent bi way rek lañ ci xam nan way yonent bi nag amul ci alxuraan yéen a ngi ni toog tiim kaamil bi 114 saar la wax leen ma fan la yàlla wax way leen yonent bi génne leen ko amu ci way leen yonent bi amu ci de yaa atiullah wa atiu rasul Sénégal ñoom ñu ne gannu rasulallah way leen ko dañuy way yonent bi rek way yonent amul ci diine way yonent bi amul fenn ci diine bi 114 saar la billahi wallahi taala amul fenn fu yàlla wax woy leen yonent bi fii la da ngay gis maay géwélu yonent bi yonent bi da ngaa bokk ak moom dara bay nekk géwélu man maay woykatu yonent bi yonent bi dafa am woykat ku la ne nga woy ko yàlla waxul nan ko woy léeg-léeg nga dégg ñu ne yàlla moo njëkk a woy yonent bi moo njëkk a wax inna allaha wa malaa'ik loolu woy la ba pare jàpp alxuraan bi di ko traduire ni mu ne non Sénégal ñun duñ dem parce que dañoo ñeme yàlla loolu est ce que way la ah dégg naa keroog benn waaye mu ne yonent bi mu juddoo yàlla njëkk a joxe ndawtal waaw ma ne ko boobu de bu réyee tey ngoog de bis bu nekk bu réy ngay dégg waaw yooyu la ñuy wax kon yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko aaya bi tey mu ngi jeexee fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kaana min al mushrikin topp leen yoonu yonent yàlla ibrahim jeng ci lépp lu bon jub ci lislaam moom ibrahima day mësta bokk mësta nekk ci bokkaalekat yi kon boo déggee li yow lu la war nga moytandiku balaa ngay nekk bokkaalekat ndax yàlla nee na ibrahima wa ma kaana min al mushrikin musta nekk bokkaalekat musta dend ak bokkaalekat yi musta jege bokkaalekat yi kon nag sayid xawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jàngee alxuraan aaya yi fu muy jeexee dee leen ci bàyyi xel aaya bi fu mu jeexee tey mooy lan wa ma kaana min al mushrikin ibrahima musta jege bokkaalekat yi mus koo nekk yow tamit nga jéem bañ a jege bokkaale bañ a dend ak bokkaalekat yi bañ a jëflanteeg bokkaale kat yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu